Cheikh Moustapha Fall Falilou eh, mi ngi joxe kàddu yu bàyyi koo ci suñ jëw yi ñuy toog. ni ngeen ko baaxoo déggee ci ñun rek. ni ngeen ko baaxoo déggee ci ñun rek. kàddu jàmbur la yor. kàddu jàmbur la yor. jëwriñ ji toog di sëñ Falilou. jëwriñ ji toog di sëriñ Falilou. jëwriñ sëñ Modou Aminta. ne ci biir kilifaam yi ne ci biir kilifaam yii. di ay waajuram. di ay waajuram. di lépp ci moom. di lépp ci moom. waaye moom itam ñu def ko muy seen jëwriñ nag. waaye moom itam ñu def ko mu seen jëwriñ ñoom itam. moom itam mu def ko muy jëwriñ ci moom. moom itam mu def ko muy jëwriñ ci moom. waaye ma bëgg nga xam ne nii. waaye mu bëgg ñu xam ni. ñu fi nekk mu bokk ñoom Cheikh Ibrahima Fall. ñii fi nekk mu bokk ñoom Cheikh Ibrahima Fall. ñuy tuddoo ci man ay rak. ci moom ay rak. la ma doon rek. la mu doon rek. loolu lan doon. loolu lan doon. mbooloo mépp mën na yëkkati loo kàddu. mbooloo mépp mën na noo yëkkati loo kàddu. mën na noo yëkkati loo mbooloo suñu àndee faaw ñu am njiit. ndax mbooloo bu ñu àndee faaw ñu am njiit. wala dëgg du mën a ne ci ñoom. wala dëgg du mën a ne ci ñoom. wala ñii ma bokkal Cheikh Fall. wala ñii ma bokkal Cheikh Ibra Fall. moo waral ñi ma bokkal Cheikh Fall. moo waral ñi ma bokkal Cheikh Ibra Fall. ñu bokk jotaay bii. ñu bokk jotaay bi. te mu njëkk leen a feeñ. te mu njëkk leen a feeñ. nga xam ne loolu rek laa leen def. nga xam ne loolu rek la leen def. li ci des lépp ñoo ko def. li ci des lépp ñoo ko def. seen mag ju baax ji. seen mag ju baax ji. di seen kilifa. di seen kilifa. seen jëwriñu kilifa. di seen jëwriñu kilifa. seen kilifa yi fab seen kàddu. seen kilifa fab seen kàddu. ñii fi daje. ñii fi daje. jëwriñ ji di Serigne Abdoulaye Fall. jëwriñ ji di Serigne Abdoulaye Fall. moom Cheikh Mortala. moom Cheikh Mortala. ñu ne ko wooyee Serigne Abdou Rokhaya. mooy kilifa jotaay bii. mooy kilifa jotaay bii. ci aada yoon wi. ci aada yoon wi. moo fab kàddu gi nag. moo fab kàddu gi nag. teg ko ci loxo rakkam yu baax yi. teg ko ci loxo rakkam yu baax yi. ki mu def muy seen jëwriñ. ñu teg ko ci loxol ki mu def muy seen jëwriñ. muy sëñ Falilou. muy sëñ Falilou. moom itam mu def ni mu baaxoo def rek. moom itam mu def ni mu baaxoo def. suñu dajee ñun murid yi. suñu dajee ñun murid yi. mu fab kàddu kilifaam. mu fab kàddu kilifaam. jox ma ko. jox ko ko. ma jotali ko ko rek. ma jotali ko ko rek. waaye moom jotali rek la ci doon nee na. kon nee fi ñuy tàmbalee suñuy kàddu mooy. alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin. yoo xam ne ndax aji wut yoo xam ne kat. la mu jóg di ko wuti. la mu jóg di ko wuti. loolaa ko fekk si. loolaa ko fekk si. loolu murit yi. loolu murit yi. Ah, bànneex la bu rëy. bànneex la bu rëy. ñi am seen borom. ñi am dimbalul seen borom. wala ñi am dimbal fa seen borom. wala ñi am dimbal fa seen borom. lii rek lan am. lii rek lan am. ñun buñ fi doon fi doon am junniy weer dara duñu fi jëlee ludul. dara duñu fi jëlee ludul. baat bi ñu fi jëlee tey. baat bi ñu fi jëlee tey. mooy liggéey bi noppi mooy liggéey bi noppi wala ñu ne jërë ngeen jëfati wala ñu ne jërë ngeen jëfati dem leen ci dem leen ci dégluwaat baat ah, fun masa dem nag fun masa dem nag li ñu fi nar a jële tey li ñu fi nar a moo nu jële foofee moo nu jële foofee lenn ca lenn ca mooy liggéey ba noppi mooy liggéey ba noppi wala ñu ne wéer bi wala ñu ne wéer leen liggéey bi dem dégluwaat baat dem dégluwaat baat loolu lañ def tey nag loolu lañ def tey nag kon ci turu sëriñ Fallilu kon ci turu sëriñ Fallilu Abdoulaye Fall mii. ci turu Serigne Abdoulaye baax yi fi toog. ci turu rakkam yu baax yi fi toog. ci turu waajur yi. su ma nee waajur yi nag. sun maam ji toog di Serigne Ngagne Fall. di waajur ci ñoom. moo tax mu waxe ko noonu yi. kon nag ci turu jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji. di Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb. ki joxe woon baatum ndigal bi. di Serigne Touba. Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñoo ngi ñaan suñu borom mu yàggal seenu dund te wéral leen moo joxewaat baatub nan wéeraat liggéey bi ñun ñi ko doon liggéey xam na ni noppeegul lu ci war rek xam nañu ko xam nañ fi liggéey bi toll ku gis ker gii ñu tiim ñu def ko fi ci fan yu néew te kër gi daj ak lu mel nii fenn fu ne. ci jëwriñu Seex Ibra Faal yi. kenn ku ne fa nga daan dal. kenn ku ne fa nga daan dal. nga yóbbu fa. nga yóbbu fa. lu mel ni la nga woon. lu mel la nga fa na ko. wala sax ko. ñëpp a teewaat rek. ñëpp a ànd teewaat. ñun ñun ñu fi jiitu ñëpp lañ fi daan dajeel. ñëpp lañ fi daan dajeel. kenn ku ne. kenn ku ne. waaj wa nga daan waaj. waaj nga waajtaay wuraw wa nga daan waaj. loolu teg ngeen ci seen bët de ñu xëyee ndakaaru tey wala ñu xëyee feneen fu dul ndakaaru fu dul Mbàkke bi nuñ ëgsee xam nañ ni ñii jotoon baatum ndigal bi ñi leen fi taxawal di leen gàttandu fas nañ yéenee jëfa ndigal li aw sas nag bu la ko toppilee nga dal nga dal ci digg ba ci samp sa ci digg ba samp sa bopp ci digg ba waaxu wuti kër ga waaxu wuti kër ga ba fa daal sax ña ko seenum xel mate. ña ko seenum xel dana nu xam ni. ku fas yéenee bay ngi nii. waaye kun tobbil aw aw sas kat. mu gàddu goppam. ak goppam. won ko ginnaaw. ñi ami xel. dana nu jortu ni. ku fasul yéenee jëfe ngi nii. waaye ku xool tàmbali bii di nga xam ni. xam ni ñii. la nekkoon démb. tey jii la raw. façon nanoo yéene. liggéey bi àgg ba ni coleet wala baat bi leen fi jële woon jëlewaat leen fi kon nag baatum ndigal bi ñëw na ci kaw gàttal nag wala boog ci kaw matal baat bi ñu joxoon mooy liñ fi indi daal ñuy séenu nag nun mën a jëfee ndigal li ndigal ñëw na mooy tëral leen baatum ndigal bi te dellu ca kër ya dégluwaat fa beneen baatum ndigal loolu wax yi ni wolof la waaye ku ne xam na ni fa ngeen jëm itam baatum ndigal ngeen fay fekkaat ci ngeen nekkoon lii da cee dolliku rek loolee ñu nekkoon ki fi nekkal Serigne Touba ca joxoon ndigal li ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall mu teg ci loxol jëwriñ ji nga xam ni jëwriñam yi nga xam ni lu sotti ñoom la joxaat na leen baatum nag dem leen dégluwaat ndigal kon loolu nag neex na fi ñun de ndax liñ doon wut ci ndigal li ban ko tàmbalee rek lañ ci jotoon bu naan yéene moo ëpp pay jëf yéene jën tàmbalee tax ñuy wax ndax yéene jun tàmbaliwul moom bu dee ab safaan la dee su ko fay bu dee aw yiwa dee ko fay waaye jën tàmbalee tax ñuy wax nag waaye ji yéene moom ñépp a nangu ni ñin ko digaloon tàmbali leen ko kon jërë ngeen jëfati murid yi kàddu yi weesuwul bi ngeen ñëwee daal moom ka woote woon lam leen bëggaloon am ngeen ko ci lii ñu leen bëggaloon murid yi kon loolu doy na sëkk ñoo ngi ñaan ki digle woon yàlla fi yàgg digle waaye yéen ñi jëfe woon ndigal li wala ñun ñu jëfe woon ndigal li yal na nu yàgg jëfe ndigal ci dara yi ci digle woon kon murid yi jërë ngeen jëfati ñëpp am na ndigalul dellu toog digluwaat baat bi fu ñu ko mën a déggee rek defe ko nu raw nii nu ko defe woon ndigal laa ngoog murid yi leneen luñ ci war a dolli itam bu sëñ bi waxee rek ñu dolli ko ci waaye loolu daal mooy li sëñ bi woote woon lan doon wuti daal fekk si nañu far kon ñoo ngi ñaan ci turu sëriñ Falilu lii ñuy wax kat kum neex nga xaar ko ci sa xol waajuram yi toog xam nanu xam nan ni seen meññet mii wala seen meññet yii loolu man mii di jotale kàddu ci laa bokk yaa koo xam ne li ma doon ci yoon wi la ci doon te ñii ñu ne ci suñu kanam ñëpp nungul nañ ñu ko ah, day am gor soo xam ni daal su ko askor amee suñu borom noppal na ko lu mu sonn la ca ëpp kenn gàllu ko ko moo ko gàll boppam ndax ko am lu mel ni yéen muy ñoom seen meññet mii am lu mel ni ñii ñu mën laa defal lépp mën laa waxal lépp luy ab coono lu ne ñu mën la koo gàddul doyoon na waaye ñu nungu la koo gàddul nag kooku daal lu mu gàddul boppam loolu di ko sonal suñu borom teg ko ko moo ko teg boppam kon suñu borom moom noppal na ñii ci suñu kanam ndax ñii leen darkat mënal nañ leen lépp luñ bëgg lu ne nan leen ko wax rek su ngeen leen ko waxee na ngeen ko bëggee ñoom noon danañ ko nuy def lool nag mooy li wér a wér kon jërë ngeen jëfate murit yi sëñ baa ngi sant murit yëpp di leen gërëm nag